mbokk yi ñu indi leen découverte bu am solo buy jàngale lu bëri groupement des femmes du village de Dantakhoune seen présidente Khady Senghor lañ koy woowee bi la soxna nag soxna yi ci dëkk bi yëpp ngir mu nekk seen njiit ñoom sax bu nawet jotee dañ leen di jël seen compine ñuy saadu ñu leen di fay ngont bi ñeenti junne lañ koy fayeeku 15 heures ba 18 heures suba si 30 000 francs Taxi. si dañ leen jëndal tàngal indi leen ndox loolu kese lañ lay laaj Sokone TV And si ak Serre Radio, séeréer su bi basé sa Londres di topp cosaanu nous yi ñu am ab taxaw seetlu si soxna yi 15h0 minutes fekk nañu nous, tool bi ñoom sax ndeke bu ñuy béy dañuy sumi seen dàll si buntu tool bi ndax nag cosaan la bu njëkk mag ñi duñ ko doon itam dañ koy respecté ab hectare doyut leen si sa yile soxna ñoom xaaruñ kenn projet bii ñuy woowee Kawral moom na yoon indil na leen ñetti caabi ñetti caabi yooyu nag organisation bu mot sëkk bu wóor la leen jàngal ndax dañuy am kees kees bi ki ko yor ku yore caabi dañuy tànn yeneen ñetti nit yoo xam ne ku nekk ak sa caabi bokkut tak ki yore kees gi te du yore caabi foofu nag la ñuy denc seeni kokkoor yi ñuy cotiser référence lañu ñu ci commune bi ndax am nañ lu tolloog juróom-ñaar fukki 16 ak lu teg ak lépp lu ñuy yittewoo ci xew yi lu ci mel ni ay mbana ay plat ay bool ay barigo ay cuillère loolu yëpp nag boo bokkee ci mbootaay bi boo xewlee lépp dañ la koy indil ñaar téeméer dong ngay joxe bu dee ñeneen ñi nag ñu luyee normal kawral boobu sax indiloon na leen machine buy wol ak machine buy soq waaye ñaari machine yooyu ñoo mujj yàqu jigéen ñi nekk jigéen yi fàq dëkk gëmuñ lu dul seen ñaq ci financement ministre de la femme wala sax bu jógee ci benn politicien firndeel bi mooy bi lay kaas dëkk bi ñoo ko tàmbali benn politicien ñoo mottali ko jumaa ji ngeen di seen waa dëkk bi ñoo ko tàmbali ba mu yegg si fii xam ngeen ne gannaaw nawet la ñu yaakaar ñu toog di dundee yaakaar ba nawet bi wàcc ñu continuer waat ko si seen ñaq et pourtant dëkk bi di Dantaxuun dëkk cosaan la dëkk bu yaatu la dëkk bu am gannaaw la waaye dëkk Carrefour la bañ nañ ko kàddu gi benn la lu kenn wax loo xam ne intérêt dëkk bi la ñëpp a si ànd li ñu munta waatal daal état mooy robinet public bi lañ leen defal clôturer leen école bi ayet Macky Sall boobu sax maire bi di ñaantaal moo leen ko fi indil à part loolu maire bi ñëw indi na leen ay lampadaire bu moyee loolu amul dara lu ñu bénéficié wu ci état du yoon du financement du emploi bi le présidente nag ak waa dëkk bi di taalal loxo gouvernement bi ak projet yi ak homme de bonne volonté yi ñu ñëw gunge leen si waar wi moment bi may wax ak yéen ñoom de liggéey bi ñuy def ak cotisation yi ñuy def dajale nañ lu tolloog benn million si seen biir bi le reportage ki ko doon def Makayre Ndiaye bu Sokone TV séeréer rajo C'est le ñu di découverte Yenen Gok, Wedi, gis